jërë ngeen jëf yéen ñu ñuy bàyyi xel ci seen télévision Touba TV télévision bi lëkkale askan wi fépp fu ngeen mënti nekk ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen sant leen gërëm ci bàyyi xel bi ndalaat ak jàmm ci seen beneen numéro yor yooru safar tey ji nag ñu fas yéene waxtaane lépp lu jëm ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bis boo xam ne ni xam ngeen ni fépp la nit di bàyyeekoo ci biir réew mi ak ci bitim réew ñëw fi nga xam ne moom moo di ci dëkk bu sell bi di Touba xam ngeen ni nag euh, ci ab xayma ñu ngi jàpp ne lu tàmbalee ci benn million jàpp ñeenti million yi doomu aadama ak euh, lu ko ëpp daañu ñëw fi nga xam ne moom moo di ji dëkk bu sell bi Touba daanaka ci lu yées wala lu ëpp une semaine boo xam ne dañu fi nekk di jëfandikoo loole nag xam ngeen ni day indi ay conséquences ci lu bëri ci euh, jumtukaayu jëfandikoo yi nga xam ne moom la ñu xam ci lu jëm ci wàllum courant wàllu ndox wàllu lekk ak yu ni mel euh, lu jëm ci wàllu lekk gi moom mel na ni sëriñ bi teg na ci loxo boppam ndax xam ngeen ni màggal xam ni jaamu yàlla la ak bernde ba tax taalibe yi ñoom ñoo jël seen bopp li nga xam ne moom mooy am assurance ci berndeel bépp taalibe boo xam ne ni ñëw na ngir dal si ci Touba màggal mu des yeneen jëfandikoo yi nga xam ne nag état moom moo ñu ko euh, manal lu ci mel ne lu jëm ci wàllu courant ak lu ci mel ne lu jëm ci wàllum ndox ñi nga xam ne nag ñoom la fi nguurug Sénégal yebal teg leen fi ñu nekk kilifa yi tey saytu mbir mu nu mel tey ji ñoom la ñu fas yéene waxtaane jëm ci pàcc bu am solo boo xam ne nii euh, màggal Tuubaa gu yor dañuy gis ne am na ay sooxe waaye tam am na ay jafe-jafe yoo xam ne ne nii dañ ko ciy nemmeeku mooy lu jëm ci wàllum ndox mi nga xam ne dañu koy jëfandikoo xam ngeen ni euh, ndoxum Tuubaa maa u rahmati di kuréel goo xam ne nii sëriñ bi moom moo ko fi teg moom moo koy saytu ñi nga xam ne ñoo di office national des forages ruraux di OFOR ñoom ñëw di jàpp ci liggéey bi ngir ne état la tey itam fii ay population dañu fee dëkk teewut loolu lépp nag màggal Touba année bu jot mën ñi day am ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum ndox rawatina année bi nga xam ne moom la ñu dëgmal ndax jamono ji ñu waxee ak yéen population ñu ci bëree bëri ñàkk nañu ndox ci ay quartiers yu fasantikoo ci Touba. te loolu li bu ñu ko toppee mën naa dem ba biir màggal gi itam ñàkkum ndox mi day daal di gën a bëri loolu la tax nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa yi ñu fas yéenee séq ak ñoom tey ji jotaay waxtaan xool fan la ñu toll ci li nga xam ne moom di liggéey bi fan la ñu toll ci travaux yi ak itam ñu mën population yi d'ici 18 safar euh, ci assurance boo xam ne war nañu koo mën a jël ba xam ndox dina mat ci taalibe yi wala itam bu matu itam daañu indi ay jumtukaay yoo xam ne dina mën a euh, jàppale taalibe yi ci ndox moomu le ba ñu mën a teral seen ay gan loolu nag moo tax tey ji ñu taxaw fii ngeen di gis suñu ginnaaw di sous préfecture bu Ndaam Euh, ñu war fee fekk ki nga xam ne moom moo di Mansour Diallo depuis daaw nag la installé fi nga xam ne moom moo di fii sous préfecture bi def na fi ñaari at def na premier màggalam bii mooy deuxième am kon am na expérience li nga xam ne moom moo di mbir mi kon dañuy daal di dugg euh, xool ki nga xam ne moom moo di euh, sëñ Mansour Diallo waxtaan ak moom ci lu jëm ci wàllum ndox mi waaye tam ci màggal Touba d'une manière générale. salaatu llazi fi kulli sahrin wa fi safar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 buñ mënoon wax que ni moom moo gàlloo lépp dañ koy wax euh, kon jamono ji ñu jub màggal gi presque 15 jours des ci wala lu moyen loolu fan ngeen toll ci liggéey bi dëgg-dëgg. Euh, jërëjëf euh, ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yonentam bu tedd bi di ñaanal xalif général des mourides sëñ Mountakha Bassirou Mbacké yàlla na yàgg te ñu ngi si waajtaay yi. donc euh, depuis mois de juillet par le CLD ak euh, CDD bi nga xamante ne bi au mois d'août moom la euh, préfet Mbacké organiser tamit gouverneur tamit organiser CRD wam keroog donc monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye woote woon na euh, aussi au niveau national ñu toog xool naka lañu ñu lan fan toll si waajtaay Euh, le huit talaata euh, bii di ñëw le huit euh, si lañuy war a organiser évaluation bi voilà donc wàccaa yi moom ñu ngi si xam nga 18 safar moom Sénégal c'est par la première fois depuis boobu ba léegi bu ko boromam santaane woon moom Cheikhul Khadim at bu jot dañ koy célébrer donc euh, di si sant yàlla yi ñëwee fii daaw ñu organiser woon ko ak ay jafe-jafe tamit euh, ndaxte euh, màggal moom toujours day am ay problème bu si jiitu nag si problème yi nag mooy ndox bi d'abord ndox ndox ndaxte citernes yi souvent day am ay problème bu ñu ñëwee toll si ay téeméeri citerne ak lu topp ñu koy jàppale pour pour pour pour nit yi bu ñu du ñàkk ndox waaye xam nga boo ko xoolee citerne euh, mën naa ko woowee ci oto roue de secours oto buy doo dafa war a am roue de secours citerne normalement secours rek la war a doon maanaam bu pa bu forage paane citerne moom mooy mën a xettali doomu aadama yi en attendant ñu koy euh, defar donc fii nag xam nga bu fekkee ni dañuy jël ay citerne tamit nag di ko jàppalee nit ñi day xaw a nekk lu diis waaye euh, fàggu nañu ak hydraulique Hmm? Euh, ba nga xamante ni bi euh, forage yu bare entretenir nañu forage yu bare ak euh, ñu ànd si biir entretien bi ak maawa rahmati hmm? treize forage mën naa wax nii dafa gum nañu entretien yi ak maawa rahmati ñu leen di jàppale ñoom tamit ba pare am na forage bu ñu yokk mooy forage yu xayre boobu dafa kii woon donc commencé nañ ko defar nañ ko yees forage bi bees moo fa nekk ba ñu ngi toll si production bi xëy na actuellement sax war na commencé ndax tey ñu fare côté yooyu yu bare ñu ngi commencé di gis ndox donc forage boobu mi ngi dem donc euh, am na beneen forage tamit bi nga xam ne bi dañ ko bëggoon defaraat mooy bu ndaamatu bi mais boobu gis nañ ni dafa finalement dañ koy bàyyi daal di daal di kiiwaat defar beneen euh, entreprise bu doon defal bi xëy rek actuellement mi ngi foofu tamit di defaraat forage boobu pour que mooy mu nekk forage bu bees tax bu ñuy defar benn yoon mu commencé dem donc ensuite dafay am aussi ay euh, problème yi nga xamante ni bi euh, ay connexion la ndaxte forage yu Daaru naan bii nga gis nii fii moom dafa doon jox ndox boor bi mais beneen wàll bi côté bi nii sama ginnaaw daawuñu woon daaw foon kii am na benn entreprise bi nga xam ne bi moom moo fi ñëw n'est-ce pas defar na ki bi pour connecter côté bi fétti bi nii pour que ñoom it ñuy mën a gis ndox donc euh, boo ko xoolee Euh, ñu ngi si liggéey bi forage yi moom ak hydraulique ak OFOR ñu ngi sur le terrain ñu ngi liggéey pour que fo zéro panne maanaam forage yëpp daal mën a dox ba nga xamante ni bi askan bi daa ñu mën a am ndox waaye tamit euh, euh, affaire forage yi tamit da ngay gis ni réseau bi day am problème ndaxte Touba dañu nu nu ñu si di di di branché si réseau bi. dafa nekk benn branchement bi nga xam ne bi bu xaw a bu xaw a clandestin la bu anarchique la à la limite donc loolu tamit bokk na jeexitalam si si si si ni ndox mi di di di wale si dëkk bi nit yi kër yi kër yi war see jot waaw fuite yi nag dafa nekk ay fuite yi nga xamante ne bi euh, am na yenn fuite doo ko mën a gis doo ko mën a gis loolu nag SDE ñoom dañoo am ay appareils te jàpp nañu si liggéey bi nga xam ne bi ñoom bu ñu ko defee dañuy gis fil bi ñoom tamit ñëw nañu actuellement pour jàppale waa hydraulique si boobu liggéey donc pour que ñu mën a nemmeeku fépp fa am fuite ñu mën ko corriger defaraat ko ba nga xamante ne bi loolu yëpp parce que yëpp ay perte perte ndox la te loolu day tax tamit nit yi duñu mën a euh, am ñii di am ndox ñii duñu am ndox si benn gox parce que tuyaux yi ñu branché yi interconnecté ko dafa doy waar du ay même dimension te respecté wuñu normes yi loolu yëpp donc mu nekk li nga xamante ni bi euh, dafa jafe saafara saafaraal si benn benn côté moo tax sax keroog waa kii ñi ngi wax ni ñi ngi war euh, a effort ndox ni il faut benn benn étude bu ñu war a def pour Touba quand même ñu mën a xoolaat euh, réseau bi nu baax a baax a baax saytu ko càmbar ko ba ndànk-ndànk ñu xool nu ñuy nu ñu nu ñu koy corriger ba daal wax dëgg yàlla ndox mi daal bokk na li nga xamante ni bi daal jafe-jafe la dëgg dëgg dëgg si si si màggal gi. waaw gis nañ ko ni màggal am na ay gox yu bëree bëri fii ci Touba instant bi may wax ak ba léegi amuñu ndox. waaw justement amuñu ndox parce que ñu ngi si liggéey bi actuellement si chantier bi la ñu nekk pour que fii ak euh, semaine euh, màggal bi toll juste une semaine fekk yëpp euh, yemb donc si liggéey googu la ñu nekk nii boo demee ñu ngi sur le terrain loolu moom moo moom moo moo tax nag te liggéey bi dafa yaatu yaataay bi nga xamee bi dafa compliqué. mais ñoo ngi si terrain bi ak seen ay équipe te puis maire bi tamit daf si jàpp tamit ndaxte euh, appuyé na leen ay ay ay ay ay euh, toll si ay 3000 litres n'est-ce pas même euh, batterie yi nga xamante ne bi ñoom looy dawal yenn groupe yi groupe électrogène yi mairie bi jàpp na si tolloo ko ñaari fukk batterie jàppale na leen ko tamit pour que vraiment même bu courant coupé même bu courant coupé groupe électrogène yëpp daa ñu mën a daw doxal seen bopp forage daal ñoo amoon problème mu batterie ak yooyu euh, groupe électrogène ñoo amoon groupe électrogène te ministre bi sàkk woon na si waa AGEROUTE ak yeneen partenaires yi nga xam ni bi dañuy jàppale pour ñu mën a ñëw appuyer n'est-ce forage yooyu nga xam ne bi équipé wuñ leen group électrogène ñu mën leen ñoom it defal group électrogène mu mu mel ni ko donc vingt neuf forages yi nekk yi si biir Touba ku nekk dana am groupe électrogène ba nga xamante ni bu bu bu coupé wax dëgg yàlla euh, bu courant coupé benn forage du taxaw donc euh, ñi ngi si kawam liggéey bi yaatu na euh, metti na waaye tabaarakàlla euh, équipe yi ay équipe yi jàmbaare lañu ñi ngi sur le terrain nuit et jour ñu ngi liggéey. souvent investigation yi ñu def ci population yi jamono ji crainte bi ñu gën a am mooy problème ndox. Mhm. ndox mbedd yi temps accès yi dina xaw a jafe mais loolu seen problème mais problème bi principal bi nit ñi am jamono ji problème ndox la te ci biir ndox moomu tamit buñ ko ñàkkee. ndoxu ndoxu taw bi ngay wax wala ndox bi ngi ndox bu ñu ñëwee fii buñ leen ko yombalalee bañ dem. bu ñu demee au niveau des forages dañ leen di laajaat xaalis ak yu mel noonu loolu moom euh, xam nga Sénégal moom euh, caay-caay bi dafi bare ndaxte daaw bu ñu fi ñëwee euh, fekk gu ñu prévoir woon def lu ñu tuddee géolocalisation ba nga xamante ne bi camion bu nekk dañu siy def puce foo toll dañ lay séen si écran boo demee war a dellu si boo jàddee daañu xam ne yaa ngi jàdd di def naka sa noonu donc bu ñu ñëwee fii euh, amoon na si ñu d'accordoon ñu def puce si seen i camion amoon na ñu taxaw ñu ne kenn du ko defal seen kamion ba ma xupp si ñenn sax man leen bu doyee noonu la képp ki nga xam ne bi àndu si na taal otam dellu Dakar dootul duñ koy jox autorisation mu circuler te danaa jël matriculam jox ko waa police fu mu tourné si dëkk bi ñu arrêté ko bu ñu doogee seen biir xam ni loolu du sotti ñu dellu si waat ñu nangu man leen man nekkuma fi di discutante ak yéen ndax da ngeen di d'accord ak wala du ngeen d'accord signé dañ ko dañ ma wax sa réunion ba ministre de l'intérieur nee neen dañ si def géolocalisation donc bu ngeen ñëwee fii dañ koy def su ngeen ko nanguwulee rek yoon baa ngi ni ngeen dem ñu mujj nangu ñu liggéey waaye boobu ba léegi tamit gis nañu ni euh, am na lu des encore parce que am na ñi nga xamee ni bi bu ñu demee def nañu naka sa noonu léegi nag ren non seulement dañuy boole ñaari mbir dina am géolocalisation waaye dañuy fexe ba camion siterne bu nekk ñu def ci convoyeur waaw waxtaan nañ si keroog sax ak waa Touba sa kanam ñoom it taxaw nañu keroog sama réunion bi ñëwoon nañu fi euh, altine bii sax laay defaat sama beneen réunion ak ñoom balaay réunion évaluation bi altine bi dama war a réunion encore affaire ndox mi parce que pour wan ne ndox mi nu ma ko kiiwee parce que bu bu bu ndox mi yembee rek màggal bi réussir na man moom loolu mooy sama sama programme fi ma nekk nii donc euh, altine bii bu soobee yàlla damay defaat deuxième réunion dégg nga te damay defaat encore réunion balaay màggal maanaam dinaa def ñaari réunion fii balaay màggal bi te yooyu yëpp ndox bi rek laa koy laa ko may mais yeneen yëpp xëy na su ma defee benn réunion euh, de de de kii la euh, sectoriel baax na mais donc euh, loolu mooy lu ñu fas yéene lëkkale donc géolocalisation ak convoyeur ñu ànd ñu dem ah Touba ci kanam wax nañu leen sax nañu jàppale ay ndaw la ñu yore aussi yi nga xam ne mën nañ leen utiliser ñu waxtaan ak ñoom ñu mën a nekk ci camion yi n'est-ce pas maa wa raxmati tamit mel na moom camion am moom naka jekk def si def convoyeur moo tax ñoom seen camion dañ koy maîtriser mais ñun suñu camion yi loolu moo doon indi problème bi da ngay ñëw yabal leen ñu dem yóbbu ju ndox fenn ñu jàdd di def naka sa noonu te xam nga bu boobaa dëkk bi dana xat xataay bi nga xamante bi doo xam fu camion bi nekk camion bi dana fi jóge suba dem yóbbu ju ndox nit ba pare du dellu si pour yóbbuwaat beneen ndox bu ko defee dafay am lu muy xam ne bi nit yi dañ fi nekk li ngi toll si ay trois cent et quelque soixante demande yi nga xam ne ñu ngi woon fii ñu toog fii di wut ndox ah camion bu demee balaa muy dellu si jant soow te leneen li tamit moo di camion yi dañu doon liggéey ba 18 heures passé nii rek ñu ne la seen contrat bi 18 heures lañ leen wax nañu nañu arrêté ren nag dañuy jëm a dindi loolu yëpp pour que guddi bi nga xam ne bi guddi bi lay gën a féex ah ñu mën di di duy ji di yóbbul nit yi ndox guddi gi surtout nga xam ne daa ñu mën a root euh, bâche yeeg ak képp ki nga xam ne bi am nga sa réservoir sa kër loolu tamit dañuy wax askan bi euh, waa Touba comme que dañ kër yi dañuy am ay gan gis naa fii ñu ngi jaay réservoir yi ku nekk na dem wuti ji réservoir nga teg sa kër nga ñëw ñu gaaw la teelal a duyal sa réservoir camion yu guddi gi bi soobee yàlla daañu fexe ñuy daw pour mën a duy réservoiru kii yëpp kër yëpp yu am réservoir ñu duyal leen seen i ay réservoir donc daañu am aussi ay bâche souple mais bâche yi xam nga du mate waaw du mate te dañ ko bëgg a jox euh, yenn kilifa yi ak yenn béréb comme ay dispensaires yi hôpital yi xam ne bi foofu ndox du fa ñàkk waru fa ñàkk ak yeneen béréb yi nga xam ne bi daal ñu ko fa teg tamit même waa Touba sa kanam taxaw nañ fi keroog si réunion bi na ñoom daañu andi ay bâche waaye ñun leen bu ngeen amee ay bâche tamit ba teg ko fenn fu wóor ñu vérifier bâche yi ba nga xam ne bi bâche yu tegu la euh, sur le plan euh, kii euh, cet ak yooyu yëpp donc daañu leen ko duyal tamit donc lépp yemb na chlorofi clo clo clo kii bi coloration bi yëpp aussi gars yi taxaw nañu andi nañu ko depuis weer bi passé dégg nga am lépp li nga xam ne produit yi ñuy def si si si si si si si bâche yeeg ak mband yeeg ak ak ak camion citerne yi di ñëw war nañ see am cent camions waaye aussi am na yeneen partenaire aussi yi nga xam ne dañuy andi camions yi maanaam daañu dem ba xëy na camion citerne yi daañu dem ba xëy na ba moytuwul c'est 150 150 camions citerne donc euh, daañu xool nu ñu koy répartir dana am lu ñuy jox comité de gestion du Grand Magal ñoom it am na lu ñu leen di jox pour kër yi ah, bâche yi tamit dana am ñu ñu ñu si ñoo xam ne dañ leen koy duyal jox leen ko duyal leen ko dina am ñi nga xam ne bi bu ñu leen duyalee bâche yi ba pare camions yi mën na ñëw bu dellu si fii si sous préfecture bi man maay gérer camions yi comme saa ma xool n'est-ce pas nu may jàppale askan bi ak commission bi nga xam ne bi fii lay nekk waa hydraulique ñoo ngi fii taxaw n'est-ce pas ak seen citerne bi nga xam ne bi moom mooy joxe carburant camion citerne bu dem dellu si naan nombre de voyage dafa am carburant bu ñu lay bu ñu lay defal donc loolu yëpp donc euh, boo ko xoolee euh, liggéey la. mais est camion yi doon teel ñëw tamit solution. waaw de toute façon yaakaar naa ni xëy ren daa ren daañu teel a ñëw parce que bu teelee ñëw. day permettre liggéey bi nga nga wax ni ñu ñu tàmbali ko teel en tout cas hmm, euh, maa ngi xaar euh, réunion bi ak réunion évaluation bi le huit la donc dana des déjà le huit dana des déjà presque euh, neuf jours voilà donc je pense que bu ñu paree foofu rek bu camion yi ñëwee déjà dañoo amee quatre jours nga xam ne dañuy wër dëkk dëkk bi di duyal nit ñi seeni ay ay dox balaay màggal bi di jub bu ñu amee daal lu mot ay quatre jours cinq jours balaay màggal bi ñu mën a euh, servir population bi yëpp n'est-ce wax dëgg yàlla yaakaar naa ni dina kii parce que xam nga beneen problème bi beneen problème bi moo di bu bu bu ñu toogee ba ba dëkk bi xat camion bi pour mu dugg fenn yóbbu ndox dafay jafe ba pare si plan de circulation bi tamit day am béréb yi nga xamante ni bi camion yi duñ fa mën a yegg mais loo tax mooy bërëb yooyu nga xam ne bi camions yi duñ fa war a yegg mu wër jumaa jog yooyu yëpp ñooñu ñëpp kilifa yi fa nekk yooyu dañ leen jox ay ay bâche bâche souple pour que ñoom teel ñoom ñu xam ne camion du dugg fii léegi périphérique bi surtout ñoom nag ñoom ñooy aajoo euh, camion cité ni ñu jox leen ko waaye comme ni mu la ko waxee tamit ak forage yi nga xam ne bi taxaw nañu temme actuellement pour mettre leen en ñu ngi entretenir ñu ngi def lépp bu soobee yàlla euh, yëpp dina boo gisee tamit euh, ndox mi temps yi ngay dégg kii na dafa am problème dafa ànd ak teg aussi courant bi parce que ñaari liggéey yu ànd yu ñoo ñoo bokk parce que euh, pompe forage am na fuy courant bi di toll dina dawal euh, climatiseur dina dawal euh, frigo dina dawal comment dire je télé waaye du mën a dawal pompe pompe bi nag bu ko defee nag moom bu amul kii bu doy du dem yooyu moo tax temps yi et comme que Senelec tamit ñu ngi si liggéey bu mag a mag a mag a mag pour renforcer Touba en en kii ak ay poste ak ay kii ñuy transport yi ñuy yi ñuy changé yooyu yëpp dafay déteindre actuellement si kii bi. c' est comme si daal ñu ngi si chantier pour préparer la grand magal yooyu mooy tax nag forage yenn yi da ngay ngay gis ni duñu mën a am ndox ndaxte pompe bi moo mënul moo mënul moo mënul moo mënul moo mënul moo mënul moo mënul moo mënul tàkk. mais bu Senelec pare tamit parce que ñoom teyaan yëpp gis nga guddee ak bëccëg ñu ngi si si sur le réseau guddee ak bëccëg agent Senelec yi nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg ñu ngi dow ñu ngi xool ñu ngi remplacer ay kii yi yëpp ñu ngi si biir macha allah donc loolu yëpp bu demee ba nga matal ba nga xam ne bi Touba lu mu soxla si kilowatt heure am nañ ko ah ah macha allah yaakaar naa ni. kenn du wax dara. kon ñu xool d'ici le voilà donc fii bu ñuy jóge kii bi rek fekk yëpp matale bu soobee yàlla dana am kii parce que si la ñu nekk nii moo tax situation bi xaw a metti xam nañ ko parce que pompe yi bare boo taalee day dem tuuti sotti courant bi doyul parce que effectivement ñu ngi si ay réparation ñu ngi renforcer fii ñu ngi yóbbu fële ñu ngi couper fii euh, euh, connecté fii di defaraat beneen transformateur bi fële. yu mel noonu donc euh, courant bi di mate la yow nag daa ko am sa kër làmp boo ko taalee nii da ngay foog ne yow courant bi ngi tàkk guddeeg bëccëg alors que courant bi di war a dawal euh, pompe bi euh, boobu boobu doyul pompe bi amagu ko yow yooyu waxtaan nañ si waa seen lay xam nañ ko waa hydraulique tamit xam nañ ko mais tax quand même ku nekk daal mi ngi def sa mi ngi bay sa waar nu mu gën a rafetee pour que daal 18 safaaru ren ji daal ñu mën ko amal si jàmm ak salaam. ñu ndox mi waa dëkk bi di utiliser beneen ndox bi mooy taataa si mbedd mi. Eh, mm-hmm. mm-hmm. waaw ñu ngi si kaw ndox mi ndox mi tamit eh, xam nga nag mm, dañuy ñaan yàlla mu taw nag taw moom dañuy ñaan yàlla mu taw ndaxte ndox ñun nii xam nga ni bu tawulee nit yi dañuy am ay problème au Sénégal eh, Touba beneen bi moo de amul réseau d'assainissement. dëkk bu toll nii si yaatuwaay ah, nit yi dëkke nu mu leen neexee eh, eh, kenn urbaniser wu ko kenn deful réseau d'assainissement et tout ça da ngay ñëw rek ñu dagg tool tool tabax ko joxe tool dagg eh, xur yi fa nekk yeeg yëpp nga ñëw dëkk si xur ba pare nga ne doo taa bu tawee kooku xam nga da ngay nax sa bopp donc loolu moo nekk si dëkk bu yaatu bii tamit nañu waxante dëgg donc loolu nag quand même état dafay accompagner boobu programme te je pense que état bi mu ngi si donc waaye euh, pour loolu c'est un problème très très très général mais pour le màggal précisément euh, ndaamar yi nga xamante ni bi ñu ngi commencé ñu ngi ñëw parce que direction prévention la et gestion des inondations yónnee na ay ñetti ndaamar ñu ngi wër di di di dindi ndox yi mairie bi sax moom it wax dëgg yàlla def na si liggéey gu mag a mag ndaxte dafa jënd sax ñaari ndaamar yu mu payal boppam ñi chaque jour bu ñu xëyee ñi ngi si ndox mi ñoom mi di nga ngàcc ndox mi nag bare na nag parce que dëkk bi tamit moo yaatoo noonu bon euh, boo ko xoolee tamit euh, waa ONAS bon ñoom it def nañ ay ay ay ay ay ay ay ay ay kii ay infrastructure xam nga daaw daaw la gënoon a metti daaw kër ñam bu tawee man demoon naa fa daaw mais seeram day dow dañu yaatal defaat beneen beneen beneen génnukaay gis nga ren déggoo déggoo benn yoon waa Kër Ñang génn si mbedd bi di di jooy dégg nga xam nga ñi ngi ñëw dégg nga euh, gis nga même ndox yi ngay gis fii nii am na ONAS aussi am na si am na si programme déwén bu nawet bi passé dafay yokkaat yeneen kii de déversoir diggante par exemple euh, station Shell bi jëm fële si rond point marché bi foofu daañu def benn benn benn benn déversoir bi nga xamante ni bu bu bu ndox mi kiiwatee eh, sapeur yi seen électropompe la ñuy samp fii rek en un temps record nga gis ñu évacuer ndox mi donc yooyu yëpp donc ay liggéey la donc gaa yaa ngi si liggéey bi ndànk-ndànk di defar assainissement wu dëkk bi eh, di yokk déversoir yi dégg nga maam waaye alhamdulilah eh, dañu bëgg aussi xaar tuuti quand xaar tuuti ba kii bi ñëw ñu def benn genre opération coup de te loolu tamit ah kenn xamul mën nañu dindi ndox mi guddi gi bëccëg bi ba pare ba mu ne ba mu jeex tàkk ñu tëdd guddi mu taw wax dëgg yàlla loolu mënuñu ci dara nag waaye ah ñu ngi ci kawam donc euh, électropompe yi ñu ngi wàññeeku mais nag euh, météo euh, wax nañu juróomi taw yi war a ñëw fii ak màggal benn nag dem na démb moom wàññi nañu ñu ngi wàññi ñun tamit parce que météo ñoom ñoo ñu wax ni day am war nañu am juróomi taw fii ak fii màggal bi démb ba ma toogee fii <laughs> ba guddi ma ne benn ngelaw bu méttee métti dakaar gis nga ni mu def foofu donc ñu ngi jàpp ni donc dese nañu ñeent en tout cas yàlla nañu yàlla defal jàmm rek ndox tamit te baykat yi tamit dañoo soxla ndox mi. dañoo soxla keroog rek maa ngi doon waxtaan ak benn baykat eh, kilifa la sax ma ne ko ah léegi kay taw bi baax mun déet déet déet préfet te nay ñëw nay nay taw kay parce que suñu tool yi dañuy ko soxla ba léegi dégg nga kon xam nga donc euh, macha allah loolu yëpp am na solo ñu ñu ñu ñu liggéey si rek ba kii daal dégg nga maam mais na xam naa ne at yii di ñëw nag lay gën a délicat parce que màggal bi day gën a dugg si si si si si si nawet bi mais ba tey xam nga ren sax xaw na catal xaw na catal mais xam naa ni ay déwén déwén jéeg moom ah. dañ si war a moo tax mais nag loolu mooy tax tamit ñu gën see gaaw farlu si wàññi boobu moo tax waa ONAS ak yooyu commencé programme yi ñuy tëral nii pour préparer yooyu la. ñu lay jaajëfal bu baax ci li ñu dalal mbir mi tamit ci euh, information yu bëri yoo xam ne ko woon yan kàddu ngay tëjee ak lan ngay wax instant bi ñu ni population yi. waaw euh, di leen gërëm yéen tamit euh, waa. ba TV vraiment yow ñëw nga fi daaw jëloon ma si jamono bu mel ni ren tamit nga dellu si waat donc euh, am na importance euh, di leen ñaanal ak seen rajo seen télévision bi vraiment euh, yàlla may leen jàmm may leen promotion may leen gudd fan ak wér. liggéey bi ngeen di liggéey rafet na lool parce que da ngeen di permettre da ngeen ñuy permettre ñu ñu communiquer ak population yi waxtaan ak ñoom parce que xam nga lépp loo gis rek. ñàkk waxtaan moo koy waral des fois nit si duñu comprendre mais gis nga léegi lu ma expliqué nii nii si ñàkkum ndox mi te forage bi paanul ba pare ñenn ñi dañoo jàpp ni forage bi dafa paan fekk forage bi paanul problème électricité yi courant bu ñuy defar bi si dëkk bi la loolu moo koy andi mais loolu yëpp léegi yàlla saafara ko bu soobee yàlla ñu xam ni rek ah état du Sénégal taxaw na temm n'est-ce pas pour que ñu def màggal gu mucc ayib ren ji n'est-ce pas ak euh, exposition bi nga xam ne bi daaw dañoo ko tëboon ndax ay jafe-jafe mais gis nga ren il y aura les grandes de de kii yoo xam ne waa Hizbut Tarqiyyah ñoom ñoo koy organiser mm-hmm. te mu nekk li nga xam ne bi lu am solo la si màggal bi tamit donc daal ñu ngi sant yàlla donc daal di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may ñu teew si 18 safaaru ren ji ñuy yegg fa mën ko tal ko yàlla may ñu si jàmm yàlla may ñu si ndam jërë ngeen jëf wa salaam.